salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi may déglu di nuyu di ziar ñëpp di balaax ñëpp di ñaan yàlla boole ñu jéggal di nuyu sama naataangoo yi nga xamante ni que ñoom laa bokkal presse bi man technicien laa nekk ci benn télé télé bu mag ci réew mi eh, kenn xamee moo wax sax. naa ñoom ñoom ñi may liggéeyal bu ñu déggee yi dinañu ne ah kii nekkate day wax ndax kenn xamee ma wax liggéey lañ ma xamee sérieux jàpp sama ñàmbu may wax tout le temps ma ni euh, boo demee foofu ca entreprise ba su ma leen waxoon entreprise bi ngeen dem fa bu ngeen demee ci visite bi ngeen di yem rek ngeen ni ko diw diw mooy kan jox ko tugu diw dina bu boobaa dana leen wax ay qualité diw nañ la wax jàpp ñaamugam la def xamuñu ko ci coow ak yeneen ak yeneen ba ci benn jour vigile bi mi ngi may wax sagam bi de tout le temps sax daf ma koy wax benn sagam bu fa ne du ma joxe santam ma joxe ñu xam ko daf ma naan ah su duggee su ma duggee la ñu ngi ci gisee su ma tee duggee la ñu ngi ci gisee su ma génnee ba ñibbi mu ni ma ah saa yow ndekete yaa ngi fi ba tey yow bi nga duggee ci suba ba tey génn ma ne ko ah liggéey bi rek pour te dire que ni fonk nañ suñu liggéey am amuñu ci nu mu tuddati amuñu ci xaama yàlla ak kenn suñu liggéey lañu xam wàcc dem ñibbi tëju suñu kër sama kër gii mën naa fi tëju trois jours suma ma liggéeyiwul waaw ndax awma leneen lu may doxi farata moo may tax jóg bu weesoo farata jeex na sama liggéey laa xam te itam fi ma bokk tax na yenn yi xajuma ci moo tax wax kenn xamewuma ko mais su ma jógee wax rek sa parce que sama xol dafa jeex ndax yàlla def na ma nekk ci entreprise boobu depuis quinze ma ñëw fa depuis 2015 dugg fa comme stagiaire ñu xol gis qualité ñu téye mais téye bi du ah, contrat peut-être que tamit ñàkkan xam droit ndax léegi yeewu ndaxte inspection du travail droit d'ailleurs am rendez-vous convoqué nañ ñu man ak inspection du travail jagul may wax jour may wax xam naa ni ci semaine bi la daal bu ñu demee nag loi am na yoon am na ci laa xam ne danaa xam ne bu boobaa ndax dëkk bi am na yoon wala amul yoon ma demee inspection du travail tamit yàlla dem na ma fekk fa inspecteur boo xamante ni que macha allah xamal na ma samay droit yëpp ma koy sant bu baax a baax waaw ci jàppandal beeg yëpp. kon nag yëf yaa ngi noonu depuis 2015 ba tey ma ne fa nekk fa technicien nekkoon montage. di progresser di progresser ba ñu gis samay qualité indi ma à la régie en 2018 indi ma à la régie 2015 ba 2018 yàlla def na ni suma juumu 2018 la 2015 euh, ba 2018 yàlla def na ni euh, ma nekkoon montage nekkoon ci rédaction bi nekkoon ci production bi aussi nekkoon ci production bi jóge fa dem rédaction jóge waat fa ñëw production euh, nekk monteur foofu noonu. gis samay ñu gis samay qualité gis samay ah, samay sama sama sama sérieux man ak samay collègues ya ma ko bokkal ndax du man kese itam tooñ gi tamit du man kese lañ ko tooñ dañ ma ko tooñ tooñ ko samay collègues waaw collègues yi nag jaw lu may tudd tur ñoom danañu xam léegi 2015 euh, ba 2018 du contrat du dara ma leen di liggéeyal nag yàlla def tamit ñu bugg suñu liggéey ndax dañuy wax rek lépp looy def jiital ci passion ñun passion lañ nekkee ci liggéey bi bu fekkul woon muy passion wallahi alazim yàlla xam na ni euh, mooy loolu bàyyi nañ bu yàgg waaw muñ tamit je pense que ku def cinq ci ci ci ci ci kii ci boîte am fa contrat ba boobu cinq ans gëm naa ni kenn dootu la wax muñal waaw kenn dootu la wax muñal kon nag 2015 ba 2018 ñu ne ko ñu lay jox 50 000 pour nga la page 50 000 2018 j'ai tapé sur la table pour ñu mon pour ñu contrat mais contrat le prestataire je ma def fait fay ay le salaire est de 200 000 ma ne naa ci jàppandi comme boobu yàlla def na ni jabar ñëwul doom ñëwul naa ci jàppandi di jóge fu sori di ñëw gaa salaire prestataire boobu mënul dara waaye ñu jàppandi ci rek sant yàlla ndax am na ñoo xamante ne ko amuñu ko mu ngi noonu ñu jàppandi ci loolu jàppandi ci loolu te pour ma am boobu tamit loolu tamit pour ma am ko il a fallu que ma xëy suba xam naa ni xam naa sama sama sama sama même bu dul sama compétence xam naa ci sama sérieux ci sama wàllu liggéey te nit ñi loolu lañu soxla nit boo sérieux ci sa liggéey am yar am teggin loolu la soxla liñ naan yàgg yàgg moom lu mu la mënul lu la mënul may mënula ko xañ su ma juuma noonu lañ koy waxee te ñun itam noonu lañ ñu yaree ndax ci kër daara lañu nekk donc euh, mënoo dem ci entreprise bi baw toog ci entreprise ñëw dugg ci entreprise bi laaj ci tugu diw ñu wax la lu safaanoo amul wallahi alazim amul waaw su ma joxe woon tugu entreprise bi kenn jóg sol dem fa ni ah diw laay seet dèjà buntu bi boo ñëwee diw laay seet dañ la naan ah kooku moom waaw donc nag mi ngi noonu 2018 ma ma xëy suba toog sama kër ñu wax man leen ñëwatuma tant que régularisé wu leen ma régula ñu xëy suba secrétaire bi may woo woo ma ni ma suba ñëwal xëy directeur bi nee na suba ñëwal xëy nga ñëw nga signé sa sa sa contrat ma ne ko contrat bi CDI la lu nekk ma ñëw muy prestataire hésité naa hésité ñàkk pexe tax ma ko ah ma ma signé ko rek te sant yàlla ndax am na ñoo xamante ne que ñu ngi koy wut amuñu ko. ba 2020 bii maa ngi fa ba tey 2020 bii maa ngi fa ba tey euh, yàlla def 2020 euh, ñu woo ma je pense que août bii ñu génn la 2020 bii ñu génn su ma juumul te avant loolu sax directeur bi daf ñu digoon man ak samay collègue directeur bi moom bu dégloo dina xam daf ñu digoon man ak samay collègue ci corona bi ñu jël ay risque ci ñoo xamanteni que amuñu contrat ñu jël ay risque ci walu corona bi ah, jël ay risque ñëpp toog seen kër ñun ñi nga xamanteni que ñi nga am sax seen kër ñun ñi nga xam ay prestataire lañu euh, ñu ñu ñuy directeur bi wooñu ñu xëy suba toog suñu kër directeur bi yëkkati téléphone am wooñu def appel conférence appel conférence la def man sama ñi ak sama suñu chef foofu noonu euh, ak sama beneen collègue comme appel whatsapp yi appel conférence yi quatre personnes lay jël donc on était quatre sama beneen collègue bi moom mënul woon dugg parce que quatre personnes lay ñu après dañ ko defal compte rendu rek mu ne ñu ah ñëw leen ngeen liggéey affaire yi métti na waaye ñëw leen ngeen liggéey après dinañu régler seen situation tout le temps si ay promesses rek tout le temps lépp lépp tout le temps ci ay promesses la ñu ne ah waaye yàlla baax na. ñu ñëw avec tous les risques ñëw di liggéey si boobu ba tey yàlla def na mënoon nañu jàpp coronavirus waaye sant yàlla bi ñu ko yàlla tegulee di ñaan tamit feebar boobu yàlla jëlee ko fi incha allah ci ni mu gën a gaawee mi ngi wàññeeku yàlla na gën a jëm kanam incha allahu taala ñu ñëw jël risque ñëw liggéey si ba nii ci mois d'août bi bi corona bi di dem nànk-nànk ñu wooñu ressources humaines bi ont ko géré woo ñu en fait man la wo am na ñeneen ñu mais man bi ma je salaire bi ma am déjà yeggul 200 000 mu melni ku may sarax ma proposé CDD ku fa def 5 ans di ma proposé CDD euh, nu mu ma proposé CDD augmentation 25 000 francs Je quoi ni

ça s'appelle euh, prime d'ancienneté Hein? depuis 2015 yooyu yëpp affaire de IPS affaire de presse, affaire yooyu noonu yooyu yëpp inspecteur les limal ma ko ma ne voilà léegi nag yàlla def semaine bi ñu génn de ne dama leen di peut-être loolu dana leen yëngal ba faire. aussi j'étais un peu frustré mais tax ma def ko ma lettre mu yónnee leen lettre de démission mais lettre de démission c'est même pas signé dama leen ko yónnee par mail nii rek pour yëngal leen xool lu ñuy wax ma yónnee leen ko ressources humaines bi woo ma xoolul neewu ma lu tax nga ni da ngay démissionner wala affaire yoy defal ma mais lu ma wax ni ma suba bo xeye suba lettre bi dañ koy indi nga mettre ko au propre nga signer ko nga indil mako lolou moy tontu ressources humaines bi ma ni ko ah mu ni ma ko ok kii def cinq ans ci boîte bi dawal len nadjal len amul Korité amul tabaski amul dimanche chaque dimanche maa fay né lépp luy daw ci télé bobu chaque dimanche man ma né ci ginnaw chaque dimanche je bien je pèse bien mes mots chaque dimanche du pendant des années lépp luy daw ci télé bi man m'a fay nekk chaque dimanche pour télé bi ñuulul cook man m'a fay nekk

duñ ko yàqal liggéeyam mu ngi noonu ñun ay ndaw lañu dañuy daan suñu doole dañu am soxna am doom suñu yeneen collègue yi fa nekk ñenn ñi am nañu soxna ñenn ñi am nañu soxna ñi ñaari doom xam nga nga leen di fay ay mett nga war a fay appartement war a fay leneen ak leneen donc y a quoi ñoom ni ñu amee ñoom ni ñu amee soxla te kat am na boo toppoon seen ginnaaw te di leen dungu loolu lañu bëgg. Euh, ñu defal la li nga bëgg waaye jamais jamais ci àdduna loo xamanteni ka man <laughs> jomm naa ko su ma fa doon def 10 ans itam du ma ci ginnaaw kenn man du ma topp ci ginnaaw benn doomu adam bu weesoo sama ndey ak sama baay ji du ma topp ci ginnaaw benn doomu adam ndax gënuñu ma tey jii su ma waxoon fi ma bokk jaru ko su ma waxoon fi ma bokk tey jii nii wallaay razim ñëpp taf seen gémmi di ngeen ni kii lan lay def fii waaw mais am loo xamante ni que loolu yóbbuwuñ fa juddu wuñu fa liggéey moo ñu fa yóbbu léegi nag yàlla def na ni nag dem nañu inspection du travail waaw dem nañu inspection du travail convocation am na dinañ ñu convoqué convoqué nañ danañu toog inspecteur bi ñoom ñu wax man ma wax waaw inspecteur bi wax incha allahu taala waaye nag. message seul message bi may lan li ma bëgg lancé mooy techniciens yi ci télé yi nañ leen jox cër encore techniciens yi ci télé yi nañ leen jox cër bu dul woon ak techniciens yi wallahi lazim di ngeen bëgg taxawal télé mu tëleen waaw ndax benn nit mënul def lépp waaw bu dul woon ak techniciens yi di ngeen bëgg man nag li may wax man dawuma ci dara amul lu ma ci ragal amul lu ma ciy dellu ginnaaw amul lu ma ciy dellu ginnaaw ragalu ma tiitu ma suñu borom yàlla la yàlla yàlla laa yaakaar waaw yàlla bu ne dama fay jóge tele boobu dama fay jóge dama fay jóge waaw yàlla bu ne duma fa jóge du ma fa jóge man samay mbiir boog suñu borom moo ko yor mu ngi noonu sans ñoom damay dund avec ñoom damay dund dama doon dund avant ma leen di xam saa ñoom damay dund avec ñoom damay dund suñu borom laa yaakaar seul message bi. sama dernier mot mooy audio bi wa mais sama dernier mot Je ci nak ci guddal bi mais dernier mot suis yi ci télé nañ len ci techniciens duñu ay chiffon Technicien, duñu ay chiffon wa un ma ba wax man ba wax parce que je suis ndax man kenn un ma wax kenn ci Je Je suis wax wallahi Je muy sama famille muy nu mu tuddati ci entreprise ba may liggéey kenn kenn wu ma wax ñom xam nañ ko ba ci directeur yi ñom xam nañu ki ki waaw tax ñu xëy suba ñew jël ñu suñu série tax ñu jël ñu duggal ñu ci biir régie xamanteni xamante moy que mooy centre télé ñu kay piloter ak suñu suñu correct yi ñu fa nekkal waaw ñu kay piloter donc mi ngi noonu euh, loolu nag moo doon tey jii nii dinañ ci gëfën yi incha allahu taala dinañ ci gëfën yi ndax dina am suite fu mu mujjee incha allahu taala dinañ ci ñëwaat waaw wàllum inspection bi yëpp dinañ ci ñëwaat ndax comme affaire yi mi ngi ci procédure ci loxoy yoon léegi nag dañuy bàyyi li ci des yoon yoon doxal doxal doxal doxal ay mbirum incha allahu taala jégaluwaat ñëpp di remercier di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam